إني أخاذب النصارى ترى في أرضهم لمالك مصرى إني أخاذب النصارى ترى aousubillahi min asheytan irajim bismillahi rahmani rahim allahuma bi jaay rasulillahi salallahu taala alihi wa sallam salli wa sallim wa barik ala seydina walana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mbokki jullit yi mbokki taalibe yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu euh, amaan nañ mbégte ñu nekk fii rek ci guddi xasida gi nga xamante ne ñu ngi ci treizième édition bi fii ci Touba Milano ñu toog ak sunu sang su tedd si nga ni moo di Serigne Abdoul Aziz ñu gën ko xam Serigne Abdoul Aziz Euh, ñu ñëwoon ci exposition boo xamante ni ci euh, wax dëgg loxol Serigne Mahamadan Serigne Abdoul Aziz mi andi na ko fi mu mel ni amaloon nañ ko ci euh, États-Unis mu amoon fa benn impact boo xam ne xëy na ñu bari am na lum ci jàngate xëy na tax mu indi ko ñu bëggoon laaj ko nag lan mooy maanaam initiative bi lan mooy maanaam lan lan la wundu jëm ci réew moo xamante ni daanaka. Euh, man na ni mooy bastion christianisme sëriñ Abdou Aziz. asalaamaaleykum ñu ngi nuyu di ziar bu baax a baax mbokk yi bàyyi xel télévision Touba Monde bi di leen sant bu baax a baax di ci jiital sëñ Modou Mbaye Thiam euh, di suñu xarit di suñu wëllëre di ko encouragé bu baax ak képp ku nekk ci biir média boobu. Euh, waaw initiative bi ni nga ko junjee léegi. Euh, yàlla def na ñu tàmbali woon ko 2015 ci fi ñuy wax université Columbia de New York euh, loolu nag euh, li ko sabab mooy benn seetlu bu ñu def mooy ku ne xam na ni Serigne Touba moom li mu fi bàyyi eh, mooy ni mu ko waxee kan si kitaabu wal xadis wal adab laa jamaxu fi dati wala jamaxu zahab sama trésor sama patrimoine bi nga xam ne moom laa leen bàyyee mooy alxuraan ak sunna ak bépp jikko bu baax kon loolu mooy njàngalem Serigne Touba moom la ñu tuddee yoonu murit loolu nag ñu seetlu ne murit yi macha allah ñu ngi ciy góorgóorlu di ko sàmm di ko tasaare donte sax léeg-léeg dina ay jafe waaye nag ñu gis ni tasaare googu léeg-léeg dafa mel ni dafa xaw a des ci wet ndax boo jëlee lu mel ni jasporaa euh, bi nga xam ni léegi macha allah lu bari ci mbokki taalibe yi ñu ngi ci réew yu bari ci Amérique ci Europe euh, macha allah dafa daje di def bis yu mel nii bisu xasaay di màggal euh, muy yu am solo waaye ñu gis ni it am na fànn boo xam ne ñàkkul warees na koo gën a dundal. muy fexe ba message bu am solo bobu muy message yàlla suñu borom subhanahu wa taala bim jox yonni ali sallallahu alayhi wasallam te muy diine euh te mu def ko ci anam yu am solo muy ci jàmm ak ci yu baree bare loo xam ne bi da koo soxla mu mel dafa jot ci ñu fexe ba yeneen culture yeneen peuples yi civilisation jot ci loolu nag ci ñu gis ni kon ngir amal nak da fay soxla ñu am yenen taxaway ak yenen approche ndax dafa mel ni réew mu nekk ak peuple bu nekk ak culture bu nekk ni muy déggee ak ni muy ni muy xamee euh, mu mel ni ñun niñ koy defee am na solo waaye nag lu bari day yem ci suñu biir day dañ koy wolofe dañ koy wolofal mu xaw a ëpp ñu ne nag kon jot nañu am yeneen i taxawaay ak yeneen i xeeti jumtukaay ay outils euh, conférence internationale bi ñu defoon New York ci la bokk te ñu am yéene incha allah xam naa sëñ Mahmadan dina ci ñëw ci kanam amal lu mel non ci Italie ak yenen dekk ci aduna exposition bi tam ci la bok nga xamni dañ ko defon ci anglais waaye fim ne ni ngi koy traduire ci yenen lakki euh, ci taxaway ñom seigne mahamadan ak ñom seigne khadim Diop gaynde ñi ngi leen di gërem ak soxna nogay ak yenen yeneen talib yeb ma sha allah ñom fexe nañ ba traduire ko fim ne ci italien naka nonit def nañ ko ci espagnol def nañ ko ci chinois def nañ ko ci portugais inshallah bëgg nañ ko fi ci yeneen làkk nga xam dal li ñu wax les grandes langues internationales moy làkk yi nit ñi gëna xam ci aduna bi ak ci français ñu bëgg exposition bi nag maanaam ñu mën ko am ci làkk yëpp mu mën a dem ci réew yëpp ndax sëñ Touba yamul fenn ñun ñun ñoo ko yamal fenn waaye moom yamul fenn kon daal ci tënk giseen bi mooy ñu fexe ba daal ñun fi ñu tëj message sëñ Touba bi yamale xaw ko yamale suñu biir ñu génne ko tubaab yi xam ko suñu doom yi juddoo ci réew ñi xam ko nga xam ne ñu bëree bëri culture yi lañ yor ak murid yi nga xamni dañu soxi ko ci rew yu mel nii ñu gën leen ci jappalé manam xamal leen sëñ touba ba paré jangal leen yar leen kon dal ci gattal loolu mo nekkon euh, ci ci deug deug mo wund initiative bi jërëjëf abdou Aziz wa loolu ndax day traduire limu waxone waxoon ne nasara tura fi ardihim li malik murtara wa yaakaar naa mënees na ko déggee nok ndax xam nga wax Serigne Touba mom mom waxam mom lu mu wax rek lu mu gis ba la lu suñu borom amal la amna lu ñu la Euh, ñàkkul àgg nañ cee àggaguñ ci te taalibe bu nekk li ngay ñaan mooy bokk ci jumtukaay yi nga xam ni ci la ko suñu borom di jaarale li suñu pas-pas mooy liggéeyal Serigne Touba mooy suñu xidma mooy fexe ba mel ni ñu ciy xaw a nab nabi ba bokk ci ñi muy jaaree ci ñoom ndax suñu ngërëmal Serigne Touba suñu tawfeex ci loolu la nekk kon ci gàttal euh, damaa jàpp ni wax boobu wax bu xóot la waaye euh, li ma ciy dolli rek foofu mooy dafa mel ni xaatabanteeg nasaara yooyu maanaam xamale yàlla suñu borom jamono yëpp la am solo waaye jamono ji ñu toll ni yaakaar naa dara ëpp ko ci solo dañoo nekk ci jamono yoo xam ne crise spirituelle am crise des valeurs boo xam ni moo c'est mondial rax ci dolli euh, islaam euh, toll ci diggante boo xam ne dañ koo gàkkal tilimal ko nga xam ni li may wax les deux radicalisme ñiy tudd ñiy mbubboo l'islam di def ay jéya ak it ñi bañ l'islam di ci jaare di tilimal l'islam ñooñu ñëpp nag mu mel ni Sëñ Tuubaa dafa indi ay réponse te àdduna bi yëpp di ko xaar ndax fi mu nekk yaakaar naa ku suivre média ko ne nga dégg lu ñuy tudd l'islam la xam ñun nag ñu am chance ñun murid yi koo xam ni jihaad na bi bil hulum bi tuqaa def ko ci jàmm ci xam-xam ak ragal yàlla ak lu baax mu mel ni nag kon modèle boobu dafa mel ni àdduna daf ko gën a soxla fi mu ne dafa mel ni man ni ma koy waxee àdduna sëñ Tuubaa la ñuy seet waaye gisaguñ ko ndax bu ñu waxee non violence ñu bari ci ci ci àdduna bi Mahatma Gandhi wala Martin Luther King la xalaat te xamuñu ni sëñ Tuubaa moo leen ko njëkk a woote ci ci biir lislaam la ko woote te jihaad boobu am na ci ndam kon dafa mel ni jullit ñi soxla nañ ko ci ngiiroo bi islam ngiiroo ci waxin waaye ñi ñi gis-gisin bu ñaaw lislaam yi soxla nañ ko rawatina réew yi ñu nekk kon daal ci gàttal damaa jàpp ne murid di dañoo war a gën a xam seen mission fi mu nekk nii mission bi yematul ci seen biir waaye dañ ko war a tasaare ndax sëñ Tuubaa moom programme na ko ba waaye nag laaj bi mooy ndax ñun am nañu pëstéef ak organisation ak it li mu laaj lépp eh, ñu ñu ñu def ko ngir loolu amee ci ñun incha allah. waaw léegi xam nga wax nga non violence boobu te gis nañ ni ñi nga xam ne na leen sax yenn prix ci non violence moo leen mujjee waaye sëñ bi gis nga ni moom violence boobu daanaka euh, moom mujj ca ndax euh, noonu lañ bëggoon amuñu ko ca te ba ñëweet ñëwee lam wax mooy dama leen a jéggal euh, maanaam ci organiser lu mel nii loolu lan nga jàpp ne kon bu dee booloo nañ wala jëm nañ ci lan mooy moyens yi wala parce que am na ci loo xamante ni nga ko waxee lu bari des na. xay na lu bari mi ngi mel ni ci sunu biir rek lañ ko yamale damaa xamul égoïsme la wala ñàkk xam-xam la pour traduire euh, mbirum sëñ bi ndax damaa jàpp ne mbirum sëñ bi euh, maanaam plan d'action la waaye du loo xamante rek dañ ciy dund ni spirituellement yem ci ba nasaxal li nga xamante ni moo war a jëmal àdduna ci ci jàmm ji nga xamante ni moom lañ xam ci lislaam waaw euh, jërëjëf ci laaj boobu man sama xalaat ci loolu mooy li ma waxoon léegi rek mooy sëñ Tuubaa moom valeur yi ñu soxla yëpp ci dund te fawsey ni muy taxe àdduna ak dund na ko yar na ci ay nit te bàyyi dem na bàyyi ko fi maanaam bàyyi na ko ci ay téere ay mbind yu leer kon li ci des mooy xamle ko te jëfe ko loolu nag fi muy tàmbalee mooy ñun murid yi nga xam ne ñooy woote woo seen Touba loolu ñun ñu xam ko ba noppi xam ko leer ba noppi loolu ñu incarné ko suñu doxaliin ak soo ko mën a tasaare ndax comportement ak euh, ak discours dafay ànd ndax bu fekkee dañuy wax it te li ñuy ñëw di seet loolu dégg ko ñëw gisuñu ko ci ñun it loolu beneen problème la. kon loolu day dafa doon war a doon ab soññ ci ñun ñuy woote woo Sëñ Touba nekk ay ambassadeur ay modèlu Sëñ Touba loolu benn mbir te lool nag wax dëgg yàlla faaw ñu gën cee liggéey ndax macha allah murid yaa ngi liggéey waaye nag boo xoolee liggéey bi euh, jàpp naa ne waroon naa weesu fi waroon naa weesu xam naa seen tan ci gën a ñëw ci lu yaatu euh, leneen tamit mooy euh, buñ ko buñ ko buñ ko dundee ba noppi nag li ma wax sax ñu tasaare ko tasaare nag ay anam yu bari la waaye dara gënu cee yell jëfandikoo jumtukaay yi nga xam ne réew yi laaj muy masalan ay conférence yu mag exposition ay projection de film yu bëree bëri jumtukaay yu bëri yoo xam ne tubaab yi moom ñoom noonu la ñuy déggee ñoom tubaab yi ñoom boo leen bëggee jox message bi doo yem rek ci di waaraate ci baatin wala jàpp euh, di toog di di kuréel lool baax na waaye yemu ci wala di naan kafe ni koy waxee ñoom dafa am yeneen façon ñoom lu ñu xam loolu nag bu amee euh, ñi ci jiitu kon mooy tubaab bi waaye nag suñu njaboot yi tam la leen bàyyi xel ndax li ñu waree transmettre message bi euh, tubaab yi njaboot gi juddu fii ci réew yi ko xool xam ni dafa mel ni ruur tàmbale naa am mooy ñoo xam ni seen i wéyjur ay murit lañ di jéem a dund yëf yi waaye boo xoolee seen doom léeg-léeg valeurs yi ñi leen seen bàyyi defoon ci ñoom bu ñëwee ci réew yi dañ koy perte kon loolu di ab soññe ci ñu fexe ba njàngale ndax sëñ Tuubaa message boo ko tënkee jàngale ak yar la lu wax ji bari bari sëñ Tuubaa jàngale ak yar defar doomu aadama ngir mu am tawféex àdduna alaaxira kon loolu war nañoo fexe ba xam naa sëñ tan ci jéego incha allah fexe ba nu ñuy fexee ba yii ñu tàmbali ni mu gën a yaatu ndax lii ab ab tàmbali la euh, boo xam ne ñoo am ci suñu yaakaar euh, ndax suñu Mahmadan mi dama koy gërëm xool fa foo sa laa waroon tàmbali ndax yàlla moom ku ne xam na pëseefam yaakaar naa loolu moom <laughs> jaruñu tey yàlla def muy suñu mbokk di xarit waaye nag loolu yëpp bu jàllee dëggoom ak bëgg Sëñ Tuubaa moo gën a waral ñun ñu jàpp ne moom moo war a jiite liggéey bi tam macha allah ko jiitee ba léegi bu yàlla lii yàlla defee lii am ci taw ci pëseefam la ci alalam ci ci taawam ci yu bëree bëri kon daal fi may daanelee mooy ñu ngi wow mbokk taalib yëpp ñu ñëw jàpp ci liggéey bi ndax nag jot na fi mu nekk nii ndax it li ñuy def nii am na solo waaye boo xoolee ñaar fukki at yi weesu yëpp li li ñuy def nii rek la ñuy defaat eh, am ñuy dugg ci yoon wi Cheikh Mourtada liggéey ci ak ñeneen waaye boo xoolee ndax na mbir ya waroon a yokkoo waroon a yaatoo ndax demee na noonu ndax suñu doom yi ñu ngi gën a eh, mën a jël relève beeg ñu judoo ci réew yi kon daal am na ay laaj yoo xam ni eh, jàpp naa ni ku mel ni Cheikh Mamadan ku ko jàppale ak ñi am xalaat yu mel noonu war a mën a liggéey loo xam ne daal dina dina gën a jëmale liggéey sëñ Tuubaa kanam waaw ci loolu loolu xam naa bala maa bay benn question sax mooy moo xam ne xëy na lu sensation la rek muy septembre lañ nekk mu doonoon ci taarix septembre 1895 tey ñu nekk septembre 2017 daanaka 122 ans ba sëñ bi jàmmarloog nasaraan ba ak euh, année bi ñu toll euh, maanaam lu concret loo xamante ni tey jii mën nañ koo vanté ndax combat sëñ bi rek woon diggante ak colonie française wala léegi yi nga xam ne bàyyi na ko fi ñu war dox ci loolu comme ni nga ko euh, li ngay jàngale maanaam yow yaa ci war a jiitu ci jëf ak wax bu ko defee ki nga ci woo man cee man cee nekk loolu fan la war dese ba nga xamante ni ba léegi mënuñoo véhiculer message boobu message sëñ boobu. Euh, waaw kay jërëjëf xam naa loolu xaw a yaatu la ñàkkul xam naa <laughs> waxtu yi du may. ñu dugg ci dëgg-dëgg ndax yàlla dafa sax bind nañ ci ab téere boo xam mooy xitma la vision politique Cheikh Amadou Bamba nga xam ne jëm nañ cee faram fàcce lu bëree bëri ci waaye ci tënk rek euh, sëñ Touba dañoo war a fàttaliku li ko li ko taxoon a génn li ko taxoon a génn weesuwul yeesal diine liggéeyal yoon ci alayhi salaatu salaam muy te loolu ku ne gis na ndam li ko ci yàlla defal nga xam ne def na ko ci anam goo xam ni monsieur fu la gis ku ko defee noonu kon moom wàcc na kon daal wax ji fi mu nekk nii mooy ñun ñun lan la ñun lan lañu war a def ak lan lañ ko defal Euh, am na lu ñu jot def waaye nag léeg-léeg boo xoolee li ñu waroon a def ndax li ngay laaj mooy ndax bu dee 100 pour cent def nañ sax 10 pour cent boo xoolee li sëñ Tuubaa indi mu amee solo foofu mooy laaj bi euh, foofu laay daanee dama koy laaj euh, léeg-léeg mbokk taalibe yi ne leen boo xoolee ñi ma doon tudd sànq muy Gandhi wala Martin Luther King boo leen tuddee foo leen tudd ci àdduna bi fii xam nañ leen boo tuddoon Italie fi mu ne nii daanaka mën nañ ne 80 pour cent italien xam nañ leen waaye sëñ Tuubaa boo ko tuddoon lu naqaree dégg la nag. waaye mën naa am 5 pour cent italien xamuñu ko wala sax mën na ko sax gën a néew léegi laaj bi mooy ndax ñoom dañoo gën a jàmbaari Sëñ Tuubaa dañ koo gën a liggéey wala wala ñoom ñu ñu fi bàyyi ak ñun ñi ñu fi bàyyi ñu ñoo deful lu ñu war a def kon kon laaj boobu ci laay tëjee mun naa ko mel ne chef Mamadou dina ci mën a tontu. <laughs> kon ndax euh, transition la rek euh, li mu wax nii mel na ni taxawal lu mel nii ndax début ba àndoon nañ ko ñàkkut ay gàllankoor ndax loolu du freiné wut euh, li ñu war a def noonu. barakallah sëñ Ablaye ginnaaw bu ñu la nuyoo siaré la bu baax di siyaare sëñ Aliou mi nek ci eh, machine yi moo seigne Modou mbey diam siaré suñ mbokk di di di di lepp ci ñun di lepp ci ñun muy seigne Abdou Aziz nga xamantene ñom biñ ñun biñ gisé pass passam rek ak taxawayam bu rafet dañ ko daal di jël xam liggéey liggéeykatu Serigne Touba la ci kat yi bokk te it message yi muy virgule bokk ci yi nga xamante ne ñun daf ñoo gën a intéressé muy fexe ba nit ñi dellu ci xam-xam parce que sëñ bi dafa nekkul ci niñ koy waxee sëriñ bi dafa nekk ci biir xam-xam ginnaaw sëñ bi dafa nekk ci biir xam-xam nag faaw ñu dellusiwaat ci biir xam-xam su fekkente ne bëgg nañoo jàngale liñ bëgg a jàngale lépp muy wax ji nga xamante ne wax na ko nga xam ne daanaka tënk na liggéey bi yëpp comme noonu nga ko laajee. mais liggéey bi foo gis liggéey boo xamante ne liggéey bu am importance la tàmbali bi du man a yomb ndax man toujours sama mbokki taalibe bi dama leen di soññ di leen wax ne leen ñun bu fekkente ne dañoo bëgg a liggéeyal Serigne Touba Serigne Assis rek maa ngi ciy wax ak moom barki dembu di ko wax ne ko bu fekkee dañoo bëgg a liggéeyal Serigne Touba ba pare yaakaar ne lépp day yomb dañuy nax suñu bopp ndax yaakaar naa moom ak dundam boo ko doon xool ci ay atam ba ni ay atam jeexe ba niñ ko yóbboo Touba amu ci benn bis boo xamante ne moo gën a yomb moroomam bis bu nekk moo gën a jafe moroomam kon na ku mel noonu soo ko bëggee liggéey li bëgg rek yaakaar ne liggéey bi yëpp den doon am noflaay da sonn moo tax jant yi nga xam jamono yi nga xamante ne njëkk nañoo lancé liggéey bi mu nekk lu jafe parce que nit ñi mënuñu woon a comprendre nit ñi mënuñu woon a xam li ñu doon def duñ leen ci mere sax ndax dañuy yaakaar ne dañoo xamagul rek liñ bëgg dañoo xamagul rek liñ bëgg a wax mais sëñ Tuubaa moom képp koo xamante ne dem nga ba xam li la ci nit kii woo soo demee ba xam ko yaakaar naa du too moo tax sax ginnaaw bi man ak sëñ Aziz ñu jaayante ci jaayante gu metti fexe ba ne ndax xam nañ ne tey place bii ñu toog liggéey bii nii ak nii mu mel dëgg-dëgg liggéey bi place bi taxu koo jóg. kenn ku nekk xam na loolu liggéey bi dafa am leneen lu ko tax a jóg ndax ci làngu réew mi la doomi réew mi la ñuy waxal te doomi réew mi ñi ngi fii gis du bari kon kenn ku ne xam na liggéey bi taxu ko woon a jóg wante nag taxawaay biñ ci taxawal ba man ko fee taxawal tey mooy pour wone ñi nga xamante ne bëggoon nañ koo taxawal démb wala bërki démb te mënuñu woon a comprendre ba taxaw ñu joxe woon gàntal ñu ne nañ jéema a def ay sacrifice jëmmal dara ci seen kanam loo xamante ne léegi liñ leen di woo dana yomb ndax jant buñ ko gisee seen bët ba xam ne liggéey bi lii la te sëñ tubaa rek lañ ciy jublu bëgg a wane sëñ tubaa ba bu ëllëgee suñ doom yi am ay royukaay kon nañ jéem a fexe ba jëmmal leen dara loo xamante ne ñoom danañ ci mën a jàpp ba bu ëllëgee ñu mën a àndandoog ñoom liggéey bi loolu moo taxoon tàmbali ba jafe ñu ne kon nag léegi ginnaaw liggéey bi noonu la ndax boo ko xoolee it dafay daal doon waat ci liggéeyu sëñ bi ndax sëñ bi boo ko seetloo ci jamono yi muy sos liggéeyam bi di ko tàmbali ay bokkam ñu ci bari ñoo njëkk bañ ñu ci bari parce que xamuñu woon buñ nee ay xëy na waxuñu bokki deret yi nga xamante ne dafa bokkoon ak ñoom sëñ Mor Anta Sali wala nangam ak nangam waaye bokki doomi soxnaam yi nga xamante ne comprendre luñ woon message bi mu doon woote booba ñoom ñoo ko njëkkoon a woon ginnaaw ñoo njëkkoon a ànd ak ñoom ci xeex bi ginnaaw bi buur yi door cee dugg ginnaaw bi tubaab yi door cee dugg ndax lépp lu ko jaxaseeg tubaab yi mi ngi jóge ci bokkam yooyu ak doomi soxna yi ak ñeneen kon xamuñu woon lim doon bëgg a woote mais jant ñu demee bañ xam ne sëñ bi xañatu leen dara mais li muy def bu ko defee seen njariñ lay doon ñoom ñëpp dañoo wëlbati ko àndaat ak moom kon nag liggéey bi ñun tam dañ ko jàppewaat noonu jàpp na ci tàmbali bi noonu rek la mënoon a demee moo wane ci lu mel nii am ci ak jubluwaay xamante ne xëy na kon dana ñëw ci say laaj ci kanam muy jubluwaay bi nga xamante ne moom lañ ci am ëllëg nag ak liñ ci bëgg a jàngale ëllëg pour ñi mën ko comprendre bu baax a waaw ba tey loolu fi nii mu ni ko sëñ Abdou Aziz waxee rek objectif bi mooy fu mu toll nii maanaam décentraliser ko jële ko ci euh, li nga xam ne rek ñun moom lañ baaxoo toog jàng xasida naan kafe dem baax na naam ndax baatin la waaye nag euh, li nga xamante ni mooy yëwal yëwanal àdduna ndax léegi xasida yi dafa war a doon manam ay ay jumtukaay yoo xamante ni du yam rek ci jang waye xam-xam bi nga xamanteni ni bi defal nako ci li jur tawhid li jur ak njub li jur manam kom kom li jur ni nga xamanteni mom lañu la plan de société yooyu yëpp nek ci ndax jotul nak ñu def ko manam ñu appliquer ko haka seigne ablaye barakallahu euh, di gërem niñ ko waxe won wa touba monde bi tv yep nga xamne ñu ngi ñuy sétane direct ci aduna bi yep euh, laaj bi nga wax da fay laaj bu am solo bo xamanteni bo sétlo seigne bi ci mbindam serigne abdou djum ñu ci légui lu am solo sëñ bi seetlu leen ci am mbindam sëñ bi tëbul tëb bind xasiida maam li ñuy tuddee xasiida nga xam ne ñun mooy jàng di ko defee ay kuréel di ko barkeeloo sëñ bi tëbul tëb bind loolu. sëñ bi bi muy njëkk bind lim njëkk a bind mooy nit ki xam luy xamal nit ki nit ki xam lu mel ni ay tasawudu sixaar lu mel ni ay jawharu nafis lu mel ni ay masaalikul jinaan lu mel ni ay naxjul xadaa alhaj yu bari yu mel noonu loolu la sëñ bi njëkk a bind ba noppi mooy nit ki na xam ba noppi. su ko defee bu xamee ba noppi nag mu door a indi lu mel ni xasiida nga xamante ne ci lay taxawal ab société tey danañ la ci jox benn exemple boo xamante ne tey jëlal Matlabul Sifa Matlabul Fawsayni say ni constitution boo mën di gis ci àdduna Matlabul Fawsayni ko gën a dëgër ndax li ci sëñ bi tënk lépp su fekkee xam nga ko mooy li yor àdduna mooy liy yor àdduna tabax yi ñuy dëkke oto yi ñuy war soxna yi ñuy yor su suñuy doom su suñuy njaboot li ñuy lekk li ñuy naan boo ko xoolee lépp mi ngi ci biir Matlabul Fawzayni nga xam ne dara gén maanaam sëñ bi bàyyiwul dara kon nga xam ne sëñ bi li mu bëggoon mooy nit ki na xam ba noppi wante su fekkente ne jiitaloo li sëñ bi jiitaloon ba noppi muy téere xam-xam yooyu nga mën a xam leneen lim lay andil ca kanam lam la li jariñ su ko defee léegi yow boo tëbee tëb dal ci xasida yi da ngay am problème que tey buñ fanaanee jàng xasida ba suba te xasida giñ doon fanaanee jang bu suba kenn xamu ci dara ban jariñ la même bu amé njariñ njariñ bo xamantene ne njariñu xëy na la tok diglu wax yalla tok diglu tag yonente bi sallallahu alaihi wa amna am na njariñ njariñ bi nak bala mu doon mat deug deug da ngay xam liñ wax ci xasida yo nopi ndax moy tax nga mëna am ak teewlu moy tax nga mëna am ak dal moy tax it bu ëllëgé nga mëna ko jariño kon fay def ni ñun fiñ bëgg a nit ñi moy fi moy nañ yóbbu nit ñi ci ñu xam ba paré it man ak señ abdou ñu ragal ben problème moy señ abdou juñu nako légui sëñ Ablaye dañoo am ay njaboot fii ci biir réew mi man mii di wax ak yéen man am naa fi samay njaboot yëpp fii lañ juddoo bi reetaali samay njaboot yëpp fii lañ juddoo fii lañ defee école mais léegi su fekkente ne waajaluma leen dara loo xamante ne bu ëllëgee ci la ñuy jàpp ndax liñ doon wax buñ ci jàppee duñu réer foofu la problème bi nekkee muy kon léegi loo xamante ne su fekkente ne tey bàyyi nañ ni ma koy waxee ne borom benn borom xam dafa wax ay wax yu am solo yoo xamante ne dañ ciy delluwaat dafa wax ne dafa doon joxe benn misaal ci nit ne ñeent la. mooy nit ki xam xam ne xam na mu ne kooku na ngeen koy laaj ndax bu ngeen ko laajee dana leen mën a yee wante nit ki xamul te yaakaar na ne xam na te nit ñi xam nañ ne xamut mu ne kooku na ngeen ko moytu ab dof la wante mu nekk ñetteel bi mooy nit ki nga xamante ne xamul te xam na ne xamut te nit ñi yaakaar ne dafa xam mu ne kooku na ngeen ko moytu ndax dof bu suufee la boo xam ne bu ngeen ko yóor boo léegi dana leen dugal ci kàmb gi ngeen doon dégg de ñetteel bi mooy ñeenteel bi mooy bu garaaw bi te ñun ñëpp fi ñu ci lañ toll mooy nit ki xamul xam na ne xamut nit ñi xam nañ ne xamut ba noppi ñu di ko bàyyi muy wax te fi ñu ñun yoonu murit bu ñu ko seetloo ci problème boobu lañ toll mooy fi ñu toll discours kat yeeg waxkat yeeg yëpp xamuñu li ñuy wax te xam nañ ne xamut te nit ñi xam nañ ne xamut te ñoom lañ bàyyi ci suñ kanam ñuy wax léegi bu ëllëgee ñun njaboot gi nga xamante ne ñoom lañ amoon muy suñuy doom bu ëllëgee ci lu ñuy jàpp tey liggéey bii ngay gis nii li muy gàtt gàtt gone yi def ko ci seen téléphone yi tey lu gone gu ci yeewu te xam-xam ñor la bu ëllëgee soo déggee am sëñ Abdou Aziz wax dara ci télévision wala mu wax dara ci rajo da nga njëkkante xool ba xam li sëñ Abdou wax loolu moo doon njàngaleem sëñ Touba wala day waxi boppam ñun foofu lañ bëgg a jëm mooy xale yi nga xamante ne am nañ leen jur leen ñu nekk fii ci biir réew mi léegi ñu jox leen loo xamante ne liñ leen di jox bu ëllëgee daf leen di téye amal leen njariñ ba bu ëllëgee bu ki nga xamante ne mooy ñeenteel bii ma la doon wax léegi bu dabee bu ko dabee ba wax mu mën a dellu foo xamante ne fa muy dellu dana mën a xam ne kii looloo ko dab waaye li mu bëgg a xam mi ngi nii tele mooy réalité bi. waaw loolu de sëñ bi bu boobaa moom dana fi génne informel ndax gis nañ yenn gestion yoo xamante ni Euh, ñu mel ni man wala ñu duñ ci a ñeme àddu ndax seen kàddu jotut foofa wala bu bu buñ waxeet daanaam duñ ko dégg ndax euh, bari na yu ni yor yoo xam ni nga ko waxee kii toog di wax dalay bir ni moom maitrise wut li muy wax xamu ci dara waaye teg nañ ko fa ngir euh, kilifa ko fa teg te yow amoo ci baat te yaakaar naa ne buñ ci tënkoo woon ci nii nga wax nga xam ne daanaka dañuy jiital xam-xam lu jiitu ñuy jëf ndax sëñ bi daana ko wax adduloo bu min ko xil xablal xamal kon yaakaar naa lu bari yoon wi man jàpp naa ni waroon naa wan a weesu fii ci doxin waroon na ko weesu ndax wax naa ko sëñ Abdou Aziz léegi cent vingt deux la ba fi sëñ maam bi sëñ bi demee ci géej géej léegi waaye boo xoolee dafa mel ni nun ci benn routine bi rek ci lañ nekk mooy nan nan nan jàng suñu xaside yi nan ñaan suñu café gi rek daal di tàggoo daal di dem def suñuy berne daal di dem naam baax na ndax baatin bi falaay alhamdulilah dina dunda ruu waaye lii tax na nga mën a desal jamono ndax suñu borom na mut mu rab loolu xam-xam a koy def ak xel léegi kon ban message ngay lancé ñi nga xamante nii ñi ngi ñuy seetaan ci euh, soppiwaat doxinel wi ak tënk leen ci li nga xamante nii mooy sakku xam-xam lu jiitu ñuy jëf. xam nga loolu mooy li waral liggéey bi sëñ Ablaye parce que liggéey bi tey boo gisee ñu def ko muy ñun suñuy jataay seetlu ko sëñ Abdou Assis junj na ko léegi euh, ñi fi gën a gàtt daanaka ay toogeen ak àgg nañ ci vingt cinq yoo xam def nañ ko Italie pourtant même jataayu vingt cinquant ans ba man su ma fàttalikoo 92 bi ma njëkkee fekkee ab jataay fii ci Italie gis naa ne ak 2017 bii ñu nekk jataay bi ñu doon toog 92 moom lañ toogaat 2017 man gis naa ne amul benn changement mooy nun ay murit lañ gëm nañ sëñ Touba dañuy jàng xasiida di def ay guddi di naan suñ kafe di naan suñ ataaya loolu moom soppikuwul waaw ndax léegi waruñoo mën a toog jataay boo xamante ne jataay bi tubaab yi dëkk ci réew mi ñoo ñuy ëpp ca jataay ba ñun foofu lañu gisee mooy sëñ Abdou Ciss tey man mënatuma ko soppi ci dara parce que gëm na sëñ tubaa ba pare dund na sëñ Touba xam na sëñ Touba su ma ko doon tegal ay xasida di ko ko jàngal ba bët set mënuma ko ca defal dara loo xamante ne lu ko yokku la léeg-léeg xelam dana delluwaat ci sëñ bi mu aalu ca njàng ma neexin wa ak yëpp wante foofu rek lay yem mais bokku la ki nga xamante ne nag dafa war dugg junj na ko léegi ci ay waxam wax ñu bari ñoo xamante ne ay nit lañ yoo xamante ne ñu yàgg lañ foo leen tudde ñu xam leen ba ci réew mi ñu nekk sëñ bi tey boo tuddee ay Garibaldi ñëpp xam nañ ko mais Garibaldi lan la jox italien yi lu tax italien yi xam ko ba xale bu ndaw buy door a judd sax boo ko tuddee mu xam ko mais léegi ndax Garibaldi ni nga ko waxee léegi def na lu sëñ Tuubaa defagul. mais léegi problème bi mooy ay nit yi Garibaldi fexe nañ ba yóbbu Garibaldi foo xam ne foo ko tuddee ñu xam ko mais ñun niti sëñ Touba ndax ñun fexe nañ ba yóbbu sëñ Touba foo xam ne foo ko tudde ñu xam ko foofu la problème bi nekkee moo tax ñun dañoo bëgg yóbbu sëñ Touba foo xam ne foo ko tudde te nit ñi xam ne sëñ Touba mi ngay tudd mais sëñ Touba ndax da nga koy tuddi kese rek naan sëñ Touba sëñ Touba nangam xasida moo def xasida déedéet da ngay indil nit ñi loo xamante ne nit ki ci lay mën a dellu xam ne ki nga koy jàngal moom moo def lii kon loolu mooy suñ jubtuwaay bi nga xamante ne ci ñaareel ba mooy sëriñ Mourtala Mbacke def na ci lu am solo ndax fexe na ba ay nit ñu bari mu dugal leen ci mais nit ñooñu mën a leen a téye sëñ Ablaye léegi li tax ñuy def lii ci la bokk parce que nit ñooñu mënaguñ leen a téye am na ci ñoo xamante ne ñi ngi dem ci yeneen tariixa am na ci yoo xam ne ñi ngi génn di dellu ci lañ nekkoon bu njëkk parce que fi ñu toll tey amuñu benn téere bu ñu leen mën a tegal bu ci seen kanam boo xam ne traduire nañ ko wan leen ko amul benn njàngat bu ñu leen mën a defal ci seen kanam boo xamante ne sëriñ Touba def na ko wane ko kon léegi nit ku mel noonu noo koy mën a téye boo ko bëgg a téye ci xam-xam doo ko mën a téye kon léegi ñu mel noonu faawu ñu téye leen maa ngi koy wax sëñ ko nëga ni tey waroon naa fekk ay béréb yoo xam ne béréb yi fa lañ leen di yare fa lañ leen di joxe éducation bi ñu soxlawu tey du ma tudd benn tarixa mais am na benn tarixa bu nekk senegal boo xamante ne tey fi toll ay doomam yi nekk ci àll bi te tuub dugg ci tarixa boobu fexe nañ ba même ay kër defal nañ leen ko Sénégal yoo xam ne kër yi day méngoog seen kër yi ñu yor fii nga xam ne ku ci jur sa doom di xale mën nañ la faa yóbbu nga jàng mais yoonu murit ñun ñoo ko dàq ñëpp mais lu tax ñun mënaguñoo àgg foofu ba léegi tey doomi italiens yi fi nekk nga xamante ne dañoo tuub dugg ci yoon wi waroon nañ leen a mën a defal ay kër yoo xam ne ñoo seen kër yi fii ñoo méngoo bu ñu demee lekk gi ñu doon lekk fi lañ fay lekk climat bi ñu doon am fi la ñuy am Touba te danañ leen mën a yar ba bu ëllëgee tey fi ñu toll jaadu woon na tey sëñ Abdou Ciss waratu ñëw Italie di woote tey ab italien moo war a nekk Rome di woote doon italien comme ñoom juddoo ci réew mi li fekk àgg foofu nag liñ bëgg a liggéey sëñ Ablaye des na lu baree baree bare ñun nag foofu lañ bëgg mbooloo mi àgg fa mooy ñu dem ba tey jii buñ taxawee Rome ab italien boo xamante ne de euh, euh, maanaam cent pour cent italien la mooy taxaw di def ay xutba di woote ci sëñ Tuubaa ñun loolu lañ bëgg te looloo nu tax a jóg mais sénégalais yi sax ñun taxu ñoo jóg parce que sénégalais yi ngëm gi ñu amoon ak pas-pas bi ñu amoon toog nañ foofu ba pare mais ñun pas-pas bi ñu am tey boo ñëwatee fii ci màggal gi fi tey jii nii kenn du waxal ñu di ko tekki wala ñu di ko traduire mais italien bi ci boppam mooy taxaw di wax ci sëñ ñun ñu di ko diglu ñun foofu lañ bëgg a àgg te léegi nag pour mu mën a àgg foofu faaw ñu jox ko loo xamante ne liñ koy jox faaw mu mën koo jariñoo boo ko joxul ci xam-xam nag du ko mën a jariñoo wax naa ko Sëñ Aziz léegi xam naa foofu la ñuy tëjee ndax jataay bi gàtt ak yeneen liggéey yu ñu def ci biir wante bi ci am solo Sëñ Ablaye dama ko wax ne ko Sëñ Abdou Aziz li war a góorgóorlu bu baax a baax parce que xam nga li tax ñu war cee góorgóorlu man dañ samay wax dama koy wax directement di ko dégg du ma ci ragal dara parce que tey problème bi bu nit dikkee tuub wax naa ko ci jataay yu bari bu nit dikkee tuub bëgg dugg ci wi daa ab italien boo ne déggul dara ci wolof nga bëgg koo def am maam Thierno Birahim du dem nga bëgg koo def am Cheikh Ibrahima Fall du dem takkal ko ay kurus nga bëgg koo def tey sëñ Mandoumbe du dem nga bëgg koo defal sëñ Daam Abdourahmane du dem mais xam nga fan lay demee da nga koy jéem a woon diine ba noppi won ko sëñ Touba won ko mag ñooñu liñ liggéeyal sëñ Touba mu door cee tànn ko ko neex mu dem ci mais boo xëyee xëy def ko ab sëñ Daaru Mooti bi bi maam Thierno doon dund ak sariixa bi ak lim defal sëñ Touba nga bëgg bëgg def taalu bi Daaru Musi sëñ dan di ko xëccoog sëñ Aziz naan sama taalu bi la mais li am solo moy nañ ko won seigne Touba ba nopi buñ ko woné seigne Touba ba nopi bam xam seigne Touba nak suko ko mu doora tan ci tarbiyé yoyu nak ci magi seigne Touba yoyu fu ci neex mu door fa dem ndax moy doon li nga xamanteni moko dimbulé kon dal ci lu gatt ci teunk bu gatt rek ñun objectif bobu la ñam liñ bëgg dal moy dem ba ab khutba wala conférence wala yum ci man di doon sénégalais yi seen yoon duutu ci sénégalais yi lañ koy defal mais italien yi ab italien mo leen koy defal ci langue biñ bëgg ñu fess ki yéene ko def nak ci langue yu langue européen yépp tey ni la ko sëñ waxe waxee junj na ko def nañ ko ci làng yu bari te loolu fi liggéey bi dafay continuer ñuy continuer danañ fexe ba béréb bu nekk ñu dëppook njaboot ga fa nekk waxtaan ak ñoom fexe ba làng bañ nekk ñu mën leen ko traduire jox leen lu mel nii ba bu ëllëgee seeni doomi réew ñoom itam ñu leen man di woo ndax tubaab yi kat li muy tuuti tuuti tey jii nii foire yu ndaw yi ñuy def rek muy lu ñàkk fayda danañ fexe ba orne ko defar ko defaraan boo xamante ne kuñ ca bëgg a woo danañ la woo te ñoo leen ko dàq ñoo leen ëpp xam-xam bi ñoo leen ëpp lépp xam naa kon ci loolu la ñuy tëjee di sant ñëpp sëriñ si euh, waa kay xam naa di tëj rek ci sëñ wax na li ñu waroon a wax xam naa di fàttali yéen yi nga xam ni ak ci njiital sëñ Mahamadan ak euh, ñi mu ko àndal ñëpp ñàkkul bëgg nañ tamit mbokk ñu ngi woon mbokk taalibe ñu jàppale ko bokk na ci euh, benn conférence internationale bu mag boo xam ne xam naa buñ ci àggee sëñ Mahamadan mi nga xam moo jiite yëf yi dina ci wax ak mbokk taalibe yi ndax yéene ji mooy lañ defoon New York ñu def lu mel noonu Italie nga xam ne dañuy woo ay boromi xam-xam ay universitaire yu bëree bëri ci seen xam-xam jëm ci diine ci tasawuf ci jàmm ci yu bëri eh, ak ay om ay ay décideurs ay ñu bëri ñu dajale leen ñaar wala ñetti fan ñu waxtaane njàngalem sëñ Tuubaa ban jariñ lañ ko mën a jariñoo ci Italie ak ci àdduna bi loolu benn xalaat la xam naa si maanaam ma dan dina ko leeral bu ñu ci àggee beneen xel bi tamit mooy exposition bu mel nii ci jëmmi jamono am nañ yéene mu mën a nekk ci kër Sëñ yi am Italie yëpp bu yëpp it yu bari boobu ndax dañoo jàpp ni euh, euh, kenn bëgg a gëstu Sëñ Tuubaa foo mën a nekk ci Italie dem ci kër Sëñ Tuubaa doo fekk dara kon lu mel nii def nañ ko waaye dañoo bëgg ci njiital Sëñ Mahamadan ñu fexe ba ñi ko yittewoo yëpp kër Sëñ Tuubaa yi am fo nga xam ne du ñu am sax ci exposition waaye bibliothèque sax jàpp nañ ni kër sëñ jubaa gu nekk ndax sëñ Touba wàccal bu yuuti kulaha masajida masajid nag moom du du julli rek waaye liy waral julli moo koy jiitu mooy xam-xam ay bibliothèque yu am solo nga xam mbindum sëñ fi mu ne nii eh, ñoom ci njiita sëñ Mouhamadou ba tey eh, jot nañoo tàmbale traduire li ñuy wax ndax ju xadaayal def nañ ko ci italien fi mu ne kuréel bi ko am nañu yéene yeneen téere yu bari téere xam-xam yu mu junj rawatina yooyu ñu ñu traduire ko ci italien fexe ba di ko kër sëñ Touba yi mu am fa ñu def ko tamit en ligne nga xam ne ñu ko bëgg am ñëpp am ko site internet boo xam ne ci italien lay doon ndax jàpp nañ ni lépp lu nit di def fi mu nekk te média amu ci doole yéen ñii fi nekk nii ñu ngi leen di woo ci liggéey bi damaa jàpp ne sëñ Mahamad <laughs> comme que yow sa télé la partenariat war naa mën a am nga xam ne lépp loo leen di defati ñoom bu ñu ko waree jàllale ngeen yéen ak yeneen média ngeen jàppale leen ci def ay site ndax looy defati faaw média am ci doole fi ñu toll nii réseaux sociaux yi eh, site internet eh, yu baree bari ba àgg sax ci gone yi fi juddoo nu ñuy fexee ba taxawu leen ci ñu jàng seen diine xam seen bopp loolu seigne Mahmadan Hamna nyakur ñàkkul du duñ ci mëna aggu ci détail waye amna ci ay xalaat yo xamni buñ ci aggé ji daal moy bu nek sa njabot mëna doon ay sadiq euh tuba yi war xam seigne tuba xam ko ba nga xamni ne jarign li nga xam seigne tuba muy rahmatul lil alamin gog yor sa sam nekkon ñepp war cee jaruñu aduna euh, ak alaxira ñi ngi leen di sant bu baax di leen gërëm alaykum wa rahmatullah ak sa jërëjëf jërëjëf kon sa kaddu bu mujj kon xamna moy li seigne Assis legi rek waaye ginnaaw nag buñ buñ buñ buñ santee eh, wax dëgg yàlla eh, sëriñ xaadim Diop ak soxna Nogay ndax bu fekkonte ne pas-pas bi ñu am moom la ñëpp amoon wax dëgg yàlla lu bari ci liggéey bi dana yomb ndax liggéey bi fan yi eh, nun ñëpp kenn nelawu ci ci lañ nekk mujj na soxna Nogay mënatul a def liggéeyam sax ci nekk ci traduire bi ci nekk ci coono bi ba tax na bëgg nañ kon ñu ci bari daal xale yi ñu koy dégg yëpp jàppale ñu ci loolu. Euh, xale yi nekk Bergamo yi nekk Toscana yi nekk Treviso yi yëngatu ci yu mel ni yëpp bëgg nañ ñoom ñëpp ñu jàpp ci parce que seen liggéey la ndax ñun li ñuy def xale yi lañ koy defal ñun suñ bos jàll na ba pare li ñu war a xam-xam nañ ko li ñu war a jàng-jàng nañ ko fi ñu war a tege-tege nañ ko pare mais ñoom lañ bëgg bu ëllëgee ñu mucc ndax sëñ Assis junj na ko léegi mooy dañoo ñun objectif bi ñam mooy dañoo fexe ba téere bu suñ tuubaa doon defar ci xam ñu fexe ba traduire leen ko ba bu ëllëgee parce que dañoo am ay problème dama koy wax sëñ ma ne ko dañoo am ay problème problème bi ñu am mooy jox naa ko ci benn exemple ma ne ko ñun suñuy doom fii lañ leen jure man léeg-léeg damay rawale samay doom yóbbu Sénégal ñu def menn at ñaari at ñetti at ma am problème mu këyit damay mujj dagg njàng xale bi indiwaat ko itali damay mujj dagg njàngu xale bi jëlee ko Sénégal indi ko këyit ngir mu defaraat ngir mu defaraat ay këyitam day jël ab temps day perte benn année scolaire encore léegi. su fekkonte ne liggéey bi ñun jëmmal nañ ko ñun ñëpp ñu bokk taxaw ci duutu jar kenn di jël doomam di ko yóbbu senegal mën naa continuer dëkk ak njabootam fii ndax loolu ñuy wax noonu ci majaalis bi nga xamante ne moom lañ bëgg taxawal fii ci réew mi majaalis yéen ñëpp dégg ngeen ko te Serigne Abdoul Aziz jiite ko fële ci Sénégal ñun ñu nekk fii ñoom itam jiite ko fii ci Italie ñu bokk di ci liggéeyandoo ñun liñ bëgg mooy xale bi kenn duutu ko jël di ko yóbbu Sénégal mais tarbiye bi ñu koy jox Sénégal dañ ko koy jox Italie dutu jar ngay ngay jël say xalé di len yobbu Sénégal ñu difa tok do xam luñ fay toogee do xam luñ fay nekké do xam ngay am ay problème di len andi wat ñu del ci wat mais dañuy bëgg ñun jappalé xalé bi ci digënté bi mi am 600 fexé bam man alcorane fexé bam am xam-xam ba bu aggé ci 18 ans mëna continuer ab liggéey mëna a continuer njàngam diplôme yi mu wara am yépp mu am ko tuddu duutu daggum njàngam parce que Serigne Ablaye yow xam nga ci dara yor nga fi njabon man yor na fi njabon lég lég nga perte lég lég sa xalé 25 ans yi nga xamante ci la warona am bac lég lég 25 ans yi ëpp parce que da mujj di ko dagg Sénégal muy ñëw di toppatoowaat ay kayit di delloowaat léeg-léeg nga am ay jafe-jafe te kayiti Italie yi nga problème yi ci am léeg nga dikk am 6 mois nga am 7 mois wala nga am 8 mois te say kayit du lijjanti ko nga xam ne da ngay mujj perte année scolaire boobu wala nga continuer inscrire waat fii te fekk na fii rawoon lañ la ba pare nga demaat Sénégal du too mën a am base boobu parce que fekk nga roo lañ ba pare kon bëgg mooy nañu ci ñëpp jàppale liggéey sa doom di ko yóbbu Sénégal buñ ca àggee xale bi ci biir këram lay toog yor ab ordinateram am wala mu yor ab tablette am wala mu yor ab téléphone di man ngoon gu nekk mu am kuuri alxuraanam man di mokkal alxuraan man di am xam-xam te du déplacé ci ay waajuram waajuram bu ci bëgg sax nga xamante ne mag nga te bëgg a dabaatal parce que sëñ bi moo ne wa man tadaaraka li si xat faata min na laqaa wa xamaral aw xaata ci tasawadu sixaar même mag moo xamante ne demoon nga ba amoon loo ci perte sax da ko mën a dabaatal kon nag ñuy ñaan ñëpp jàpp ci ñu xam ne eh, li ci am solo mooy du liggéeyub sëñ Abdou Aziz du liggéeyub sëñ Mahmoudan liggéey ñun ñëpp la ñun ñëpp la ñun noo ko bokk kon kenn ku ci nekk ñu ngi la ciy tàllal loxo ku mën ku ci am xam-xam ku ci am doole ku ci mën a financé ak fu ci waay mën a jàppe ñu ngi toog di la ci xaar parce que liggéeyu yëpp buñ yaakaar it ne liggéeyu daayira la du liggéeyu daayira ñun taxawalaat ay daayira wala sosaat lu bees ñu njariñ amaluñu importance te nekkuñu foofu ñun li ñu sox rek mooy taxawal loo xamante ne nit ñi danañ am xam-xam mën a delluwaat ci sëriñ Touba ba bu ëllëgee boo karatee sëñ Ablaye Diop ci mbedd mi ne ko kan mooy sëñ Touba mu wax la sëñ Touba boo ëllëgee boo karee soxna Nogay ci mbedd mi ne ko kuy sëñ Touba mu wax la sëñ kon ñun loolu rek lañ ciy jublu di sant ñëpp di gërëm ñëpp ci taxawaay bu rafet biit ak bis bi di sant waa kuréel gi ndax ñoom it may nañ ñu occasion wax dëgg yàlla bañ leen ko waxee ñu yombalal ñu lépp ne ñu liggéey bi mën ngeen a ñëw tàmbalee ko foofu kon nag gis nañ leen ci sant ñoom ñëpp ndax mënoon nañoo def ne ñeneen ñi ci des waaye teewul ñoom dañ ñoo may seen kàddu may ñu seen kii wutal ñuy bërëb bu mucc boo xamante ne tey yaakaar naa li fi jaar te xool ko yëpp am na solo am solo goo xam ne bu ñu fi jógee kenn ku nekk dana ci bàyyi xel sëñ Ablaye di leen sant di leen gërëm di sant sëñ Abdou bu baax baax ci taxawaay bi ak disponibilité bi mu ñu jox ndax moom moo ñu nekkal Sénégal te luñ ci def moo ciy taxaw léeg-léeg dafay bàyyi ay liggéeyam bàyyi yëpp nekk ci ordinateur ordinateur yi daanaka ba 3 heures de ñu ngi sant ñëpp di gërëm bu rafet rafet bobu di talal ñepp loxo rek bëgg yeen ñepp ngeen jappalé ñu té xamné ligéyu liggéeyu Touba la ñun ñepp noko bokk wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa jërëjëf jërëjëf amal ci exposition bi nga ci xamal Bamba ci ak italien jëf xam jotaay rek rahmatullahi taala wa barakatuh ini مرسلا إني